the President, President Adam Barrow yesterday made a surprise visit to the construction site of a $35.5 million rehabilitation project of Gambia's capital, Banjul. Mr. Barrow observed the construction progress of the project meant to rehabilitate the road and drainage system of the city. The project, which was launched in February, is meant to facilitate Banjul is meant to facelift Banjo rather to address flood and sanitary disaster, especially during the rainy season. Implementation is scheduled to take three years. Shortly after the tour, this is what the Gambian leader had to say. It's not about talking only. It's not about sentiments. It's not about politics. It's about work. If you work, people will see the results, and nobody will dispute it. Banjulians, they have seen the results, they have seen the impact, and they have made a big difference in their life, especially during the rainy season. This rainy season was a different one completely. I think even the mosquitoes have migrated from Banjul. They are now finding their way somewhere else. And it's because of the, the, the, the, the work. So we are really grateful and we are very happy with the Banjul people because they have given all the support. Without their support, it would have been a problem. But they have given us support. Well, nine months after the launch of the $1 billion Dalasi project to rehabilitate Banjul, President Barrow took a street walk to gain first-hand information on the progress of the work. He delivered a very position assessment on the shape through which the country's <coughs> capital city is undergoing in efforts to bid farewell to sanitary disaster and mosquito infestation in the city. When completed, the new face of Banjul will glitter with the shiny sun thanks to a standard drainage and sewage system that would be complemented by smooth road network. waaw maam ji bi loolu Road Rehabilitation Project bi nga uh, luncheon nañ back in February démb nag ki nga xamante ne mooy njiiti réew a surprise visit to the field uh, pour xool liggéey bi fan la toolu ak uh, naka la nekk naka la si Banjul Banjul yéen si nekk di respondé ak naka la leen njëriñee moo am solo torop waa lii lañ doon xaar ci taxawaayu liggéey bi nga xam ne defe naa ne comme ni mu ko waxee te euh, lu amul seede rek defe naa ne wóorul waa bànjul ci seen bopp ñoom ñoo firndeel ne na Banjul meloon ak ren ni Banjul mel wuute na te loolu nag dañ ko ciy delloo njukkal waaye waru garam la ndax li tax mooy. Mm-hmm. moom moo nekk ñetteelu président ginnaaw bu nga xam ne moom nañ suñu bopp ba tey. Mm-hmm. ñu ci bëri lii lañ doon xaar pour ñu defal ko bànjul waaye gis nañ ne Banjul mujj nañoo am ku leen ko sottal te njiitu réew mi président Adama Barrow def na ci jéego yu am solo. Mm-hmm. ndax li tax ñu ne def na ci jéego yu am solo mooy xaalis bu takku lañ jël. pour mottali li nga xam ne mooy projet bi. ba tey jii ñu gis moom tamit yëmut ci santaane liggéey bi waaye dafa jóg dem nemmeeku li nga xam ne mooy liggéey bi xool ndax xaalis biñ fa dugal moom gis na ne lu mun a jëriñ réew mi la. ci ni nga xam ne moo nekk yéene ñu ci am ak yu nu mel. kon jàpp nañ ne liñ mën a gis rek mooy ne liggéey bi lu ñuy xaar mooy naka lañ koy mottalee. Mhm. ba réew mi gis ci seen bopp ndax Banjul mooy bu dee Gambia jëmma la Banjul mun nañu wax ne mooy réew bi. Mhm. ndax ku fiy ñëw Banjul ngay xoolee réew mi. ndax foofu la président bi nekk foofu la State House nekk. Mhm. kon foofa fu jara jëmmal la ba fa ñëw nga mun a nawloo réew mi. waaw oh, dégg maam ji am na solo ah, Modou ña ngi sa gis-gis Banjul na yàgg nañoo soona especially with ndox yi di taxaw si koñ yi nga xam ne looloo di attract ah, yooyu Banjul moom ah, fanaa di di other name for Banjul is city of mosquitoes eh, jërëjëf Fatima président bi sax wax na ko bu na la yooyu sax wàññeeku neen so am na solo gis-gis bi mooy ne rek you know Euh, lii itam waru garam la because mhm. soo joxee liggéey itam compagnie dafa baax itam pour léegoo-léeg nga dem seet leen soo mënta dem ko because dina tax ñooñu itam ñu xam ne kii mu ñoo bàyyi xel mhm. soo liggéey bi bu ko defee gën a jaar si yoon démbalum def surprise na waaye nekk na lu am njëriñ mhm. te ñu ngi ko xaar si loolu si yeneen i bunta yeneen i bunta yu mel noonu mu gis ne yeneen yi dafa war a demal gisal boppam euh, fan la yi fi toll su ko fee ñaax tam ñu mu ko jox su ko defee liggéey bi gën a gaaw parce que Euh, Banjul lu ñu am ni yelloo nañ ko comme ni ko maa waxee. Mhm. mooy boppi réew mi foofu la njiiti réew mi nekk. kon mhm. war naa am beneen xar-xaram bu nga xam ne ku fi ñëw rek dina daal. waaw dina xam ne fii moom ah, mooy capital yi dëkk sàngam waaye mhm, ah, doy na waar waaye hopefully na with this uh, project Banjul moom ah, dina am a tuuti facelift as expected.